ni moom moo jiite tey takk der yi nga xam ne wàcc nañ leen foofu euh, Nanko waaw dafa mel ni Nanko yow jàpp ni na Nanko Bakayoko euh, ba léegi rek ñu jàpp ne la situation est assez tendue ñu ñëw xool ñu ñëw xool ñu ñëw xool ah c'est un journaliste c'est un journaliste qui a été blessé waaw qui a été blessé booy xool nii lii dret la te moom laa la doon wax parce que dañoo chargé dóor ko ci euh, journaliste yi donc mu dal ko ci tànk bi booy xool ni booy xool ni booy xool ni ah, c'est un cadreur c'est un caméraman ah c'est un objectif moo ko dal. ok na am kenn ku ko transporté yóbbu ko benn structure sanitaire bu gën a jege. mais ça c'est pas l'acri lii nii l'acri ça ne fait pas ça. l'acri ne fait pas mais mais mais mais en tout cas mais en tout. waaw woo benn chauffeur woo benn chauffeur mu ñëw. yéen a koy dégg noonu. yéen a ngi koy dégg noonu. yéen hmm? koy dégg noonu. gis nga gis nga booy xool. booy xool euh, gaañu na moom euh, benn cadreur la ah non. non ñu ngi non bu leen tiiree ci presse. waaw. mais de toute façon de toute parce que bi ñu tiiree ci la waa ji gaañu. daañu donc ça veut dire que ne voilà. ah en tout cas la presse est là pour faire euh, en tout cas son travail donc la presse est. là pour faire son son son euh, donc euh, vraiment euh, li ñu soxla rek mooy ñun ñu protéger ñu pour ñu mën a def suñu liggéey ci anam yi gën mais tamit là vraiment boo koy xool c'est c'est vraiment en tout cas dafa dafa dafa metti dafa metti dafa metti mais mais on a été sagé quand même. waaw mais c'est parce que dañ waaw c'est ça. moo ko tax bi moo C'est ça. Mais on a les images, monsieur. a les Mais attendez. Monsieur, monsieur on a les... Attendez. En tout cas, tout cas caméraman bu West TV la. Euh, caméraman bu West TV euh, moom la ñu euh, moo noonu kon ci li nga xam ne kon moom mooy insident yi nga xam ne moo am fii ci convoi bu Ousmane Sonko fi nga xam ne nag fa taxaw. Euh, sama ndeyjoor ni boo koy xool fa la ñu jëm pour euh, mën a jaar fi nga xam ne moom mooy euh, corniche bu Dakar fii nag mooy fii nga xam ne moom mooy jaar fi nga xam ne kon moom mooy kon Université Cheikh Anta Diop de Dakar en tout cas pour le moment on va essayer de voir ba léegi on va essayer de voir on va essayer dinañu mën a dem xool